did it! jina ah, kan simar mudaye yana no alam la ta jina ah, kan simar mudaye Izar bazir zumza galola mama lamine Isa juani lamda badas yena saje e Sadio ani lamda bada asyena Sadio e Sadio ani lamda bada kango jo bulo khade চাই Casamance rey rek laa la ko deful Serigne Touba boy Casamance rey rek laa la ko deful waxaw dëgg waay Serigne Touba boy man naa champion di fooñu maa la mën maa la ëpp doole barki Serigne Touba yow xam nga ba dama mën a jàppee nga oh général bu Malick a ngi noonu Cheikh Omar général yaa ngi waaj lan la buur ki Casamance laa ko jàpp nar koo rey barki Serigne Bamba daa toogoon Casamance di nokkatu booy ñu ne ma mooy champion foofu noonu ma dem fa jàpp ko rey rek laa ko deful barki Serigne Bamba. kon tey jii jàpp na ne yow ak moom fa ngeen laale. dama koy defaat la ma ko defoon. mu neex ko ak mu naqari. yónent yàlla Muhammad yàlla na ma yàlla suturaal mais moom xam na ma bu baax. mais Général yow loo bëgg Général. lamb rek lamb rek. lamb rek waaw. mais Général la. may séeréer di ñoom. kon ina ok na bëgg. séeréer laa ni ñoom. mais Général fu mu jëm lan la. lamb rek lamb lamb laa fi nekkal. national mënoo jàpp gars yi ci bëre dóor bi bëre simple bi nga bëgg la lan lamb defuma dara xale la dañ maa yónni yaa xam ci ma général bi ubbi na gaa ñaa ngi lay xaar sa morom yi daaw defal nga leen bëri cur général lu ne ci kanam la ma defoon daaw la ma defoon daaw la may ñaan yàlla ma defar ren lu ko raw lay laay ñaan yàlla defar ren lu ko law général góor sa combat bu neex booy ay ragal lañ bul waxati ci ñooñu lu nooy la ñuy wër général Moussa Ndoye combat la bu neex barke Serigne Bamba bëgguma lu nooy mais ñoom lu nooy la a wut grand frère la ñuy wër mais nañ dem man sax bëgguma leen. ñoom lu daw. moo ma ci jaaxal. pour bañ ñu daw wala bëri. maa ngi nii de. damay entraîner chaque jour matin soir non femme non film y a pas de maladie c'est travail pire et maa la wax loolu. ay général Cheikh Omar général la nga noonu Cheikh Omar xale baa ngi noonu. dimanche passé nga jël ko ak Pape Dia production tey nga ñëwaat fii loo nar. waaw di ñaan yàlla rek yàlla suturaal ma comme keroog nu mu yàlla may ma ndam. affaire yi moom ñëw compétir rek la amatul lu ma siy pourvu mais damay ñëw wane jom wane fu laang faay lu ma yàlla may rek ma jël. je eh, eh, ku ne xamee namu nañ sa combat Pakala euh, sa mag sa xarit Bombardier yi nee na bu Reug Reug mu may ko chance est-ce que Reug Reug jaarul ceewgul. waaw non làmb noonu la tey Bombardier deux ans moo ko dese tey jii yoon la mu may chance pour làmb gi tijjeeku tey jii maa ngi si kaw dañoo a ñëw jël booy ndax làmb gi dafa tëju instant ñu toll moo tax ñëpp ñu am problème combat dañuy jël combat yi fay ko cinq bër kasa bi foofu lay déroulé te loolu baaxul si may ko nay chance rek waaw Gris 2 ngeen am fu ngeen jaar bëre combat bu metti ba amateur yëpp tey mu ci defet amul combat amoo combat est-ce que fi la waat ko gën a leer waaw man nag du ma laaj benn mbër mais mbër bu pare rek pare naa pour bëre ak yow mais sa diggante Gris 2 combat la ku ñëw rek pare naa pour bëre man bàyyi ma fi kenn am ma neex combat Garga Mbossé combat Yékini Junior combat la Malick Niang combat lu gars di daw ci pakala lan la. waaw ah, xëy na lamb gi moo waxul dëgg rek tey ñun dañoo bokk si lamb dañoo war a wàcc ñoo bëre tey lamb gi ñu yemal ko benn côté loolu du lamb ko waa pour man nañ ñëpp ñu ñëpp ñoo bëre ndax ñëpp ay mbër ndax gënuñu maa doon mbër tàkkuñu maa te te combat obligé général bi day métti day métti eh obali obali na bàyyi tànk bi mu maye ah na bàyyi tànk bi mu maye bunkal xajul ci yel eh général eh obali maa doon général la ilaha illallah eh li combat doole la combat doole la El Hadj waaye lamb ji doole la bëre doole tey na naa lamb dafa seer tey. boo xoolee xale dañoo neexoo dañoo tolloo doole. waaye Serigne Ndiaye Sele koy bëggee ni jafe-jafe. dañ koy bëgg a jaaxal. Serigne Ndiaye Sele meneen koy bëggee ni ay jafe-jafe. Serigne Ndiaye Sele meneen ci geneen wet gi. bu sérieux wee ci lamb ji rek yaakaar naa mën ne ko jeexal. laa ilaha illallah da jeexal. Sele baaxul. Sele baaxul Sele. Sele baaxul Sele. Sele dafa Sele. da lay wër. da lay da lay forcer xale la xale la Serigne Ndiaye daan na selemele dem xale la xale naa la su ñu ko ëpp ñu ko xale la te gën ñu la selemele Serigne Ndiaye meles ko na ko wallaay meles doxal Obeuly Général saan Serigne Ndiaye Obeuly selemele eh, eh. ay lii lan la Cheikh Omar lii lan la man bëgguma lii man buur nga tik tik taxul walaay walaay ndeysaan hey hey Obali sa tànk bi Obali sa tànk bi Obali. xale bi ñàkkul doole. am na doole. waaye Obali lu leer lay bëre. jëlaat na ko mais bi yoon du ci génn eh, eh, génnaat na ci. xale bi daa mën tànk. eh général eh Obali ngi far général eh, na ko général bu mu ko nestee. ne woon naa la bu mu doole. daa topp bi d'accorduma ko. calculé wul na général Malick. noonu ma jàkkaar lool. bis nga tey freiné na général Malick. Obali ngi noonu le grand champion. tey nee naa la mbabat day seer Ousmane. tey làmb day seer tey. o ba léegi noonu may seen mu ngi noonu kaay ndeysaan o ba léegi dafa mel ni waa ji da ko xam barki Serigne Touba dama ko ëpp doole mais dama gis da koy jox sa tànk lu lu bari yoon parce que mënu si dara poids lourd la 130 kilos de muscle pas de graisse barki Serigne Touba. par ne woon na tey doo ci génn daf lay duma loolu la waxoon sax. koo mën ngay duma sa doom ngay duma yow mi sa su ma ko bëggoon duma day métti doomu joof yor laa di doomu séeréer séeréer yi am si man yaakaar. ndeysaan eh, ba léegi noonu Babacar. kaa ngi noonu euh, defet bu xaw a compliqué moo koy def mbër ku ne xamal dimanche bi passé moo ko jël moo ko jël fële ci arène nationale daan Serigne final. tey mu ñàkk demi-finale mais lamba gi noonu nee na ma buur damay compétir lamb laa am lamb laay dundee mooy sama liggéey ñu bàyyi ko mu sol ñu waxtaan ak moom pour mu xam tey yan faay la yan faay la am tey ba ñàkk demi-finale boo xam ne waru koo ñàkk dafa mel ni dafa topp objectif ba mu ba mu jeex Ousmane général a ngi noonu général a ngi noonu général ñu may ko mu sol yéreem Ousmane général dafa mel dafa topp bëre bi ba mu sës waaw dara buur tay erreur boobu laa gis mooy da nga da nga topp bëre bi ba mu sës la man loolu laa xam bëre laa xam lu ma mënta am bëre moo ma ko xañ champion la daanoon na ko mu ma sëñ Fallou la ma ngi suñu kanam amul ragal waaw keroog euh, ku ne xam ar euh, fan arène nationale yow yaa ko jël mais da ngay gis ba ci commentaire yi amateur dañaan euh, général il faut que mu mu wàññi puissance bi ci bëreem di calculer son loolu loolu laa man looloo may may loolu laay imposé saa su ne yàllaa ko may ndam maa ngi ko koy sant yàlla di ko ñaanal ndam li jikko. mais bor la. bor la doon la demee. bor la coo jibul buur. général. tey ki nga dajaloon final keroog dimanche éliminé nañ ko donc Pakala la nga am demi final wala Obali. est-ce que sor nga leen. waaw mais dara ñun ay compétiteur lañ dañoo liggéey pour ñoom wane liggéey lu mu doon ak mu nekk si ñoom rek. ñu mu pare lu mu laaj dina ko def bu jël làmb gi yàlla. saison daaw euh, daanaka gis nga li nga wane arène nationale saison ren bi ma ngi bëgg a tey ku na xam ni mbëri ëpp ñu la dàq ñu la bëree Serigne Ndiaye est-ce que du gën yokk loxoom ci biir bëree bëri dóor bi. waaw mais dara yàlla dogal am naa combat maa ngi Libidor di ngeen yàlla yàlla may ma si ndam di woo suma équipe suma agri face su ma papa taba su ma papa Abass Ndoye su ma papa Taba Gueye ak lépp lépp écurie Fass di woo waa Medina ak suma dëkk waa Ndiabat ak 75 villages yu di woo sama gars yi ma si combat boobu parce que combat combat bu ma ñor la man. mais nag li mu adversaire la. waaw adversaire la moom dama koy sant di ko gërëm parce que combat jafe woon na moom courage jël ma dama koy sant ba di gërëm. yow fekk adversaire la boo xam ni adversaire de poids la. adversaire de naa ko trop jox naa ko cër maa nga gis nag muy compétir quoi waaye me lamb dóor ak bëri simple du benn quoi bëri na simple waaye dañuy mel ne di soog a bëri mu sunoo bëri quoi mais jàpp na bëreegun parce que li ñuy bëre nii moom mooy dal dëpp gi quoi waaw. waaye daan Serigne Ndiaye am ci moom victoire fan la mën a yóbbu li mu doon. waaw daan Serigne Ndiaye fi ma mën a yóbbu bari na ndax parce que moo xamante ne mu ngi saw yoonam li mu doon tamit mu ngi saw yoonam di dem su ma ko daan am na jéego yu mu war a dox si làmb daal. waaye bu yomb ci moom. mu ko du yomb tamit ci yow. non du bu yomb bu noree yomb ma bakoo nga kii bakkan laa ko jox kii du ma daan. sa bakkan nga jox Serigne kii su ma yeboo su ma yeboo kaar ba jëm Dakar non du ma daan quoi. Pa Omar Pa Omar daanul daanul Pa bu fi nekk di jéngu bu fi nekk di risqué daanul Pa Omar daanul garaawul seet ay Pa da leen la ci fekk nee na la ci fekk ndaysaan Adama Diouf maam mi di sëgg noonu Ousmane ndaysaan moo fi daan alaaji may barki dem moo njaay day yëngal ndeysaan Adama Diouf Mame Mbine se grand champion séeréer walaay ndeysaan ndeysaan mu salsa de day salsa John Pakala dara amagul. Pakala nga forcé da dem Pakala daan na Ndiol John dem na final Pakala moo njëkk qualifié Ndiol John ñàkk na Pakala moom expérience la mbër moom selemele gis nga boo xoolee ñaari lambi lamb ji la Serigne Ndiaye gën a jox cër. waaw ah Serigne. Serigne eh, Serigne. comment mét lay doon. déggoo li ma la wax ndaanaan la waaye jum na. dafa doon enchaîné. waaw. enchaînement la woon. gis nga. gis nga gis nga Serigne Ndiaye daan na obali. dem na final. nee na gars yi dama am xel. nee na gars yi dama am xel. Serigne Ndiaye kenn du moom ndaanaan la. bërekat la. Malaw féetee seen càmmuñ la ne ee Ngor Ñaax Ngor Ñaax jël na eh, saay saay la sàq la daane woon oo oh. Thiatou daanu nga waay dana final bu mag bi war a dox ci diggante Serigne Ndiaye bu Faas. ah ak Pakala mur Montagne. ñoom ñaar ñëpp dañ ko mérité. ñëwaat na ndeysaan. Ya waaye ñoom ñaar ñëpp ku ñu da ngaa respecté sa morom. mu ngi noonu Jax production. du ay caaxaan di. ñaari million. Eh.

bu ñu mu jeex épreuve de force lay doon waaye Pakala na ko jox cër xale la am na doole xoolal sëriñ mu jàppee dëbb dëbb na ngeeñ ubbi ubbi tànk yi xale la am na ronge wax na dëgg ah Serigne Ndiaye moytul Pakala Serigne Ndiaye moytul Pakala min na lii min na ko. Eh, eh eh Pakala Serigne Ndiaye daan na